ayo sei ayo, Ayo, eh, foto yang kita que disse que Don't New. New não me. bagaimana? Jika tahu tele geram jabaram deh, ayat tele mana apa geram? Aha. Dah kisah tanya ni kamu jape. Isa. Cuma top top. Kamu mhm. kalau dia faham, dia kan dari dulu lo lo kamu jenis. Tengah iya kan ada buka wajah. Betul. voilà nekk nii nag. ay sama sang bi maa ko di ma dóor. wala ñu dóor ci yow. effectivement j'espère que du ñaareel ngay préparé nii. tu sais fekkoon nga fi kenn. bien xam nga li ko fi jëlee. donc tant que war kenn du fi dugg. ah fii de yow yaa ma gën a xam boo xasee perte sa place rek dañ koy fees kenn tabax kaw tabax suuf fat fees dara du dugg ak man saw puno rek. borom nag ak meer. dafa ma ñam ci nag bi. des fois ma ñam ci meew. man xam nga ba ma xoolee dama lay jox meew. waaw ah, <laughs> leen te xam naa ko ci. Mhm. Euh, réew mi yëpp dañuy jëw de ndax nee ma dépp dama la takkee bu léegi mhm. koñ bi ma dëkk sax kenn mënta fexe ba xam ma. ndax damay tëju rek. dëgg nekkul dama laa war a toppatoo bëgguma nga tase benn xale. xam nga ni mu lay fekkee ay dof di dëkk ñoom quoi. mu ngi woon da nga commencé ëppal nag vraiment quoi. wax du bari ci nag la muur te epi nga juk toge ni pardon sa yow kan yow opal nga de reral sa bop way so xamoon man maay kan nag da nga def attention si man bu baax a baax yow do gat dof na rek buy taxawaalu yow amo fenn fo joge amo fo jëm da nga joom da nga joom yow bo fa won téeméer dafi melni ne man sa bop lu leer la lay tegal ni bokkul mana ak yow maa la bàyyi ngeen nëpp këpp si gaale bi di def ay affaire sa affaire kooba yi ngay jéem a diriger nii tolloo ma fii ci wér te puis wax ji sax daf man daf may commencé déranger quoi. yow léegi instant bi bu la wax ci commencé déranger yow lan nga bëgg. dama lay dóor bu ngay bëgg a dee. koy dóor man. yow pire. c'est man. te bu mën a bu baax de koy dóor mooy. yow comme xale du yàgg sax xam nga yow mooy ñu ma la wax rek da ngaa feebar feebar dafa bëri sa yaram dama lay laaj léegi nga dee ñu ne rey laaj ni. Eh, booy nga defal attention si man mosuma dóor góor mu taxaw ñu ma doo ñëpp dañoo faatu rey naa quinze personnes te amul sens yaay cinquième bi nag seizième bi defal attention si man bu baax. waaw wax jeex. jeex yow yaa ngi tëj jeexal wax ci xam nga dengan dinaa ya. génnee gàlle bi yow. ya bu lay neex ñu xool aywa yaa ko tere neex. parce Ya maa ngi yow mënuñoo bokk gàlle bi quoi yow da ngaa dof sa jabar dafa dof Ya ya. mënumaa nekk ak yéen instant yi ci risque laa. waaw puuxa bébé. puuxa bébé lan la. muy ul. maa ngi Ya di sees Ya, sees ngay maa koy lijjanti. xoolal dimbali ma rek. man yéen ñaar ñi ñoom affaire de góor affaire de gis nga yow. affaire de góor la je vais le ma ma yow dañ laa yor. yow amoo benn jën ci kër gi yow fii loo fi def nañ ko def loo. tey nag maa xam la tey loo musul xam kii magam bi am teraanga nga koy dégg sama at sama teraanga lay taxawaan. puuxa kii maa yow yow nga yow. yow nag say wax day ëpp dangay wéeru may ma ma sama nekk. say wax day ëpp déglu ma fii. yow booy wax nag dangay mel ni koy daanu dangay wéeru ne may ma bàyyi ma kii ma jàkkaarloo. non kii de affaire de góor la bu doon jigéen ma bàyyi la nga xam ne affaire de góor la bàyyi góor ñu ren la ko. bilaay jóg xoolal jóg duma la duma yu metti def ma ko mu xam xamoo li ngay dundee xamoo lan ngay solo sa jabar gi lay solo di looy dundee yaa ngi dund sama gis lay dundee sama moon yi. Eh. yow eh yow eh yow tamit noppi nga weeru ne ah wax ji nag day bëgg a bëri de danga may may yow sa problème bi tamit dëkkandoo yi bokkuñu ci wax ji quoi nit ñi ñooy wax mënoo waxee ndànk. sama yoon newu ci damaa bëgg nga déglu ma bu baax yow sa mbéj beeg beeg nga mëñ nga mëñ ji damaa bëgg mu dal. kanam gi di joxe gowaat. yow noppi ma wax. mais baal ci daa jaga wax. noppi ma wax moom dangaa war a noppi nag de. comme léegi da wax waxal kon foog nga wax yow waxal. yow lenn rek laa lay mel. dañ koo fekk am nga ci da ngay yow da ngaa amee asma da ngay wéeru ne di la daaneel da ngaa bëri wax wéeru nga bàyyi ma wax. man naa góor man naa jigéen. waaye wax man man bëgg naa wax yaa ngi wax sa dënd baa ngi ñu jóg. te da ngaa amee la ko bëggee. jàpp naa laa bëgg a wax. yéen du ngeen mën rek du ngeen mën wax. xoolal wax mënul ci dara fii ñi nga fi gis ñëpp ma damaa bëgg nga déglu ma yi nga doon fay augmenté nañ suñu kër pare na macha allah ñu ne la waat kaay fii ngay fay nga augmenté sa bopp ba yaakaar ne mën ngaa tolloo mun niveau munul nekk. kii sama jëkkër la lu mun lu ko neex lay def si kër gi kenn du ko laaj. waaw nag xam nga si ma ne. laa ilaaha illallah Ali baba ko mën a may la jàmm may la salaam. di ko bi abal ma. génn day kii ñoo moomee la la bu soo leen moomee de. yow de xam nga kanamu jëkkër ji benn pôlu ba yàq. ah may ma sama yàq. eh xam eh, eh. nga dama lay yàq. dëgg la dëgg eh. maman ak jëkkër ba ñëwoon lakkal waa kër bàyyi ñu ne dëkkandoo bàyyi ñu ne tool yow seen moom toogal fii